سعد من في دهر الله انظره إن جندا من خياف قد سرى sëy yi nga xam ni ñooy am ci Sénégal ni sëy yooyu di doxe mu moo tax doom ju barkeel juddootu ci ñi mujj juddu ci jamono ñépp ay fecckat la nu dégg leen tuuti te ne fecc nag ku la dàq fecc moo la gën a ñàkk kersa ñi mën a fecc ñépp amatuñu kersa dëgër bët ñàkk fulla benen bi ci top moy mën nañ ko jambat waye responsable bi nak deug deug moy état bi moy affaireu gor jigen homosexuel gor di sëye góor fala yam jigéen di sëyeeg jigéen fala mbon yam fii nag amu fi woon fant xaftaan ba sol caaye ju yam ci wóom ji ñu xam leen ñoom ca loola booba jamono nag diggante ndar ak ndakaaru am nañ fa baat di invitente bu ñëwee ndar mu mel na tuq su bun nag